auzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokk yi comme ni leen ko digtale woon sànq rek ñu ngi toogoon ak kenn koo xamante ni ci njabootuk sëñ Massamba waaye njabootuk sëriñ Moustapha Massamba ah, muy sëriñ Sidi Mbacke tey nag xam naa ni su ngeen ñu gisaatee ñoo ngi toog ak koo xamante ni tamit ràññee nañ ko te ñu koy présenté waat di doomi sëriñ Moustapha Massamba di soxna Xadi moom sëñ ma sàmba moom sëñ Massamba Mbacke xëy na tey jii ne dañoo ñëwoon seet ko fii ci këram gi nga xamante ni ab sànc la pour waxtaan ak nag ci màggal gi ak euh, gisin wi nga xamante ni am na ko si te yaakaar saa yoo xamante ni dékk nañ ko micro rek wala mu génn rek wax ju am njëriñ lay doon xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo soxna si ñoo ngi lay nuyu Mbacke Balla. ñoo ngi leen di fay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Basirou. di nuyu sëriñ Mamor Mbacke xalifab Cheikh Massamba di nuyu Cheikh Ahmadou Mbacke xalifab sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba di nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di leen sant bu baax te di leen gërëm te di leen dalal jàmm di leen fayub nuyoo. macha allah soxna si Mbacke Balla ci kàddu yu am solo yooyu xëy na day nit koo xamante ni. tabaar kàdda kenn dootu ko présenté ci réew mi wala ci biti réew ndax ci jotal ak matal ak ni mu nekkee tamit liggéeykatu Serigne Touba Mbacke suñ doon laaj rek màggal gi ci préparation yi ak gan ñi nga xamante ni gis nga ko ak day mel ni saa yu dikkee rek at mu ne day gën a day gën a yaatu gën a sakkan rek loo ñu ciy joxal ab jàngat bu gàtt. waa Ahmadou Serigne Touba moo mel noonu Serigne mooy kenn ndax dafa kennal boroomam moo tax mbiram du del du deltu ginnaaw mukk ca kanam rek la jëm. ndax sëñ Tuubaa dafa liggéeyal yàlla suñ borom liggéey bu set wicc bu leer nañ topp yont bi sallallahu alayhi ba am ngërëm moo waral ñu takkal ko garaatu xaadimu rasul moo waral lii ñu koy sant bu baax di ko gërëm sant goo xam ne nii am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem macha allah cant goo xamante ni am na commencement waaye du am yamawaay Cheikhul Khadim rek lañ ko mënal ndax wax na ko ci biiri kàddoom dafa yor garaatu xaadimu rasul garaat bu jafe waaye ci njabootu gi naka dañu taxawee màggal ni jàpp naan dina am solo bu baax ndax ku ne Cheikhul Khadim wax sëñ Massamba da ko féete woon fi nga xamante ni néewaan na ñu gis nit ko fa féete woon naka la ñuy taxawee màggal gi. waaw njabootu sëñ Massamba gi comme ni ko sëriñ Moustapha am sëñ Massamba daan taxawoo ñu ngi koy sant bu baax Mbàkke te di ko gërëm di ko ñaanal bu baax moom Serigne Moustapha am ma sàmba yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci barke Sëñ comme ni ko Serigne Moustapha sàmba daan waxee rek da daan wax ni ñun amuñu lu may Sëñ Tuuba Sëñ Tuuba rek lañ am kon lu am bu bisam bi ñëwee nañ ko ci def bu jàllee ñu wutiwaat leneen di dajal ba mu ñëw ñu defaat ko ci noonu rek lañ koy defee ndax ñun Sëñ Tuuba rek lañ am ki nga xam ne moom lañ am muy suñu waajur kii nga xam ne moom la fi bàyyi muy sëriñ maam moom sëñ Masamba yàlla na fi yàgg lool te wér loolu la ñu wan sëriñ ahmadu Mbacke moom sëriñ Moustapha am sëñ Masamba ci yoon wane sëñ Moustapha am sëñ Masamba tegoon moom la ñu teg ñu ngi ci ginnaawam di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ñu yàgg koo ànd ak moom ci barkeb sëriñ Touba. Masya allah yang ñu ko yàlla eh, bàyyi suñu kanam moom sëñ Mamor ak sëriñ Ahmadou Mbacke moom suñu Sama Samba ba ñu yàgg ya a liggéey bu baax a baax a baax laka ngay dénk tamit mbokki taalibe yi nga xamante fu sore sore ci réew mi di ñëw ngir mën a fekkee bisub ci sore ci dëkk yi fi sore ci àdduna bi tamit ñu fay jóge ñoom ñëpp rek di mën a ci dëkk bi lan mooy ndénkaan li nga xamante di nga leen ko bàyyee mbokki yi dañ leen di doog leen a dénk ndax ki nga xam ne dafa bàyyi ndeyam bàyyi baayam ñëw topp sa maam danga koy sant di ko gërëm ginnaaw bu ñu leen sante ba noppi gërëm leen liñ leen di dolli mooy ñuy muñ di jàppalante di dimbalante te jëm yàlla tax muñ dana tax doo xeex muñ dana tax doo xuloo muñ dana tax doo toppante te képp ku du toppante suñ borom dana la dolli ay xéewal te dana la dolli yërmande te suñ borom képp kum dimbaleel boppam dootoo jaaxle dara na ni muñ bañ a toppante di dimbalante di yërmandente te jëmmi yàlla tax képp ku wuy si wooteeb yàlla danga war a muñ te yàlla tax wooteeb yàlla màggaluk Sëriñ Tuubaa wooteeb yàlla la ku ko wuy si danga war a muñ na ni muñ yaatal xol yi ñi ci tali bi na ni yaatal xol yi di dimbalante muy borom oto yi borom sare di borom daamar yi ñepp na ni muñalante tay yaatalante tay dimbalante ta xam ne wuy ci wote bi ma sha allah soxna ci mbacke xamna rek laaj bu mujj mooy naka nga dunde magal gi ak talibé yi ak gan yu tedd yi nga xamanteni fekk ci nan la waaw magal gi niñ ko dunde moy di sante señ touba rek ndax ñun bay fall gi lañuy dundu ci mam Cheikh Ibrahima Fall lañuy roy ndax ah, Cheikh Ibrahima Fall dañu dañ ko bëgg lool mhm. waaw dañ ko bëgg bu may wax ni kan moo boo ma laajee soxna Xadi kan mooy sa idol dama naan maam Cheikh Ibrahima Fall ndax sama bëgg ci Serigne Touba moo tax ma jël maam Cheikh Ibrahima Fall def ko idol mm-hmm. màggal gi nag macha allah dàq na si ñun gën na si ñun gépp màggal gun ma sa màggal mm-hmm. Mm-hmm. noonu la ko sëriñ bi defaree ñu koy sant bu baax wéet nañu lool nag ndax sëriñ Moussa am sëñ Massamba waaye ñi ngi wéttalikuwaat bu baax ndax mel na ni jógu fi ndax ñi fi bàyyi muy sëriñ maam morom sëriñ Massamba mm. ak sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Massamba mm. ak samarak ju baax ji di sëriñ Sidi Mbacke mm. moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba di samarak di sama xarit jege ma lool li ma lool yërëm ma lool teg ma fu rëy fu kawe te bu ko neexoon du ko si fekk waaye dafa ma jàppe mag jàppe ma lépp dara manqué wut ci kër gi comme sëriñ Moustapha am ma sàmba dani ma woon soxna Xadi ma ne ko Mbàkke mënu ma demal mbuur nekkal ma fa mbuur laa waaje màggal gi ñëw waaye daf ma woo ni ma soxna si bul indi dara ñëwal rek ma ne ko Mbàkke foo daanoo Mbàkke ba ni ma bul indi dara man dama faa war a xalangoo xam fa ndax suñ tubaab suñ tubaab ñëpp la kon nan ànd daanu rek si sëñ bi waaye maa ngi koy sant bu baax moom si sëñ Sidi Mbàkke mhm. moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba di ko gërëm dara manqué wu fi dara manqué wu fi di ko ñaanal rek fépp lépp lu man ren mhm. yàlla na ko man déwén di ko seere ne tamit ku sonnal waajuram la moom sëriñ Sidi Mbàkke moom sëñ Moustapha sëñ Massamba ku sonnal waajuram la mhm. féete woon ko fépp toog ci kanamu waajuram lu mu ko sant mu daal di koy def tukkeetut defatut dara mhm. ma koy ñaanal coono boobu mu sonnal waajuram mhm. yàlla na ko yàlla fay maa ngi koy ñaanal si barke Sëñ Tuubaa Cheikh Moussa Mba macha jërëjëf soxna si Mbàkke ci ñaan yu am solo yooyu nga xamante ne doon na ko ñaanal rakkam ju tedd jooju yal na yàlla boole yiw wi ci daraja yonent bi kenn ku ne xamoon na ni nga demee woon ak sa wajuru tedd wa di mhm. yàlla boole yiw wi te bàyyi leen fi ba mu yàgg xam naa rek kàddu yu mujj yi ak kàddu soññee rek yaa ko defee ñëwaat ne yëkkati jotaay beneen yoon incha allahu rabbi. ngi sant mbokk yi fi teew yëpp di sant mbokki taalibe yi fi teew yëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér-gu-yaram yéen it ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla lépp lu ngeen man ren bu déwénee yàlla na ngeen ko gën a man fépp fu ngeen bëgg a egg seen télé bi yàlla fépp fu ngeen bëgg egg yalla na ngeen fa egg yalla na ngeen bok si milliardaire sëñ Touba yi Ahmadou ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem ñi ngi wax jërëjëf sëriñ Touba ndax euh, sëriñ Touba kenn la amul morom kenn la su ñun amuñu complexe wax jërëjëf sëriñ Touba na ngeen wax ñep ñëpp jërëjëf sëñ Touba ndax day kenn si ñun jërë ngeen jëf. soxna si Mbacke Balla ci yu am solo yi nga xamanteni doon nañ ko deyalé ak mom ak di ko ci ay waxtaan yo xamanteni képp ko xamanteni deglu nga ko rek xam nga ni kaddu yu soññee la waaye kaddu yu pësteef la waaye kàddu yu liggéeykatu Cheikhul Khadim la waaye kaddu nit la ko xamanteni so soo xoolee gi rek daanaka sa xel mi day dem directement ci Cheikh Ibrahim ndamal Cheikh Ibrahim mam Cheikh ibrahim Fall ndax ci bëgg ak ciop go xamanteni amna ko kon dañ koy ñaanal rek soxna xari yalla yagal ko fi bàyyi ko sunu kanam ba li nga xamanteni mi ngi ko bëgg liggéeyal ju tedd ja ba ko liggéeyal umma islamique ba ko liggéeyal khadim Rasul mu am ci lu kawe jortam mm. xëy na dañuy wàcce rek inshallah allah allahu rabbi da ngeen gisaat ñu si yeneen i jataay ak ci yeneen i waxtaan yu mel nii rek si ci màggal gi yëpp jërë ngeen